lim ëpp téeméer ñoom doomu ngor yi doon amal ak ndaje ak taskatu xibaar yi ca grande mosquée bu ngor la ko waral mooy projet tabax ab gendarmerie nationale ñu jàpp ni rek dañoo sàcc seeni suuf te nguur gi jëlul benn jéego waxtaan ak ñoom balaa tabax bay door kilifa diina yeeg cosaan yeeg seeni njaboot di nakarlu lu ni mel. fi ñu teew tey entre la grande mosquée jumaa ji ak dëkk bi fii la wàllu yu ngóor yëpp daan ñaani pour la prospérité et la paix de Sénégal. baax bi di wëy teewul doomu ngor yi di ko nakarlu ci seen kàddu ñoom ñi ngi woo gi mu dakkal bi les projets ndax jàmm mën a dellu si ca ngor. parce bu fekkee ne parti bi dañu toog ñu ne si waxtaan la ñu nañu arrêté travaux yi yi na taxaw ñu waxtaan ñu seet nan la ñu ñaan jàmm. ñaan ñun waaye ñu ngi koy ñaan tamit état bi ñoom tamit nañu doxal jàmm liy doxal jàmm mooy ñu taxaw jël mbir mi teg ko ci table yi ñu respecté suñuy kilifa booboog léegi suñuy kilifa ngi waxtaan ak ñoom suba ngoon guddeeg bëccëg waaye nañu teg si seen loxo loo xam ne lii lu concret la pour ñu xam fii ñu jëm a siin ñu nii rek gënaluñu ci biir Sénégal waaye lébu yi dëkk ca Ngor taxaw temm ngir nangu seen suufu maam ci seen kàddu tabax yooyee ñu door ci parking bi dafa tere doomu Ngor yi am ab bërëbu fowekaay espace de loisir te monté bëggoon nañ fa tabax ab lycée ñoom nag pare nañu ngir waxtaan ak nguur mu àddu leen ci seen ay mbëbët dëkkal xëccoo yi ndax jàmm mën a dellu si ci village de Ngor